Macky Sall ku gën sa yaay ay bu yokkee mélophone day fekk sa yaay mën na dépense dem na marché ñoo togg boo géddee yow dina la may xoon dafa la ceeb ak ay ndawal ak yëpp mais ñun suñu dépense ñun ñoo la ko jox ñun sénégalais bu jaawale sa dépense yaay ak suñu dépense de léegi togg bi neexul toggaat nga neexul saful président Ousmane Sonko ñëwoon ñu misal yi palais de la république moom lañ koy jox mu toggal ñu ñu ànd na moom dem marché ndugg di togg bu Ramani Kaba Diakité nga nekk prison ak ñeneen ak ñeneen nga ni prisonnier politique amul kon prisonnier lan moo am xam naa prisonnier Covid 19 moo am ñu sàcc milliards yi sàcc xaalisu Covid bi. Amadou wax ko sa papa ñoo bokk papa mooy père de la nation mais ni mu la uusee uusee wu ko Sénégalais yi ñun uusee wu ko de Amadou sa papa nee ko ni mu uusee yow ak sa rak uusee wu ko Sénégalais yi wax ko ko dégg ñoo bokk papa père de la nation Macky Sall moo dépense bi dépense bi moo sa yaay moo défendre suñu dëkk yi ñun Sénégalais ñoo ko rusé nattal la dina ci jox nga dem marché bi ñu ngi suñu tool bi.